kon nuyu naa la. waaw fay naa la. ci loone sant bu baax. gars yi nam lañ la de. waa mais gis nga de maa ngi toog di di di daa raj di waaj waaw. ah boobaag léegi nga bëre daan sa diggante ak Double Moteur boo yaa ngi bëre xale yaa ngi bëre boobaag léegi nga toog di xaar toogaay bu yàgg bu yàgg lu ko waral. waaw mais toog rek di xaar parce que tamit tey boo bëree tamit du tey mënoo am mbooloo mu la topp tamit ngay topp di woo ay promoteur tamit te promoteur yi xam li ngay li ngay traîner stade quoi comprendre si temps ma laaxu sama ruxo di liggéey parce que man tey am réew ñoo topp sama ginnaaw man Sénégal ñëpp ma bëgg man aw mam noonu comprendre nga moo tax bu fekkee am naa noonu tamit gisuma ko comprendre kon bu ma ñëpp bëggee damaa war a liggéey ba saa ma si ma koy estaat ñu ne macha allah loolu moo tax quoi may toog di di nëbatu di liggéey rek comprendre nga parce que xam naa mbër du du préparé da ngay pare quoi man buñ ma joxee combat 15 jours ça pare naa. mais dama fi gis ci làmb ji. mais mënu maa gis ñoom amuñu combat amoo combat te promoteur di wër combat yu neex bari fi te man daal ko man comprendre ma ba léegi. waaw parce que am na adversaire yoo xam ne dañ lay année balance yoo man ma ni Garga Mbossé numéro un da lay année balance yoo ku mel ni Yékini Junior même chose ay guy gi dafa gaañu day faju ji tamit doo xam sax fooy teg sa tànk mais nag maa ngi toog di liggéey rek di xaar mooy loolu. dama fee dama fee ay adversaire yoo xamante ni baax nañ ci yow ku ci mel ni waaw déggoo li ma ba la. comprendre nga parce que moom man def ma fi lu mu fi doxul quoi mais maa ngi toog di xaar rek si laaj kenn man ñi ma war a laaj mooy ay Yékini Junior ay Garga Mbossé ay Gouye ñooy laa war a laaj. mais dama gis ne ñeneen ñi ngi fiy lim du ma leen laaj parce que samay naataangoo lañ koo si laaj mu yaakaar da nga ko waajal wala da nga mooy loolu comprendre nga. diggante Sokh ak Franc ñoom ñaa ku ne gis nañ dimanche passé ni ñu def stade bi. sa sa diggante yow ak ñoom yaa ak ñoom mën ngaa tas mën ngaa tas affaire. ñëpp a ko waaw koroog mobilisé nañu. comprendre ku si ne sa dëkk indi na indi na la comprendre nga ji félicité sox encouragé sox di félicité eh, Franc comprendre nga teg nañ ko si yoon teg nañ ko si fulla soxo nag Franc daan ko wàññiwul dara si carrière am comprendre nga waa Pikine nañ xam ne soxo champion la quoi bu dee ne dëgg la yàlla bëgg a rëcc champion la sa Franc moo ko daan wàññiwul dara si carrière am parce que war na mën a daan moom tamit bu daanoon Franc tamit war na ko mën a daan comprendre nga combat boobu 50 50 la woon yàlla may ndam yàlla jox na nga franc dañ koy féliciter encourager soxo làmb noonu la teg si tamit seetaan naa eh, bantamba soxo woo franc wax waaju rafet comprendre nga ñu koy jaale tamit eh, soppeem bi wàññeeku noonu moom sox di ko jaale waa Pikine gépp comprendre nga te ne Pikine bu weesoo Ama Baldé ama eh, seen Boy Niang wax fa dëgg yàlla soxo mooy seen mbër comprendre man moom jët ni mooy woon sama mbër Pikine sama adversaire nag mais mooy woon sama mbër quoi. mais mais mais diggante sa diggante ak Sokh. waaw no non non non moom instant bi day xaar quoi comprendre nga. dafa daanu moo tax. waaw no day xaar parce que làmb ku daan dem ku daanu xaar loolu moo si xew du question ko daara def ma fi lu mu fi deful mais bu ma sañoon nga wax ma lii sama kanam quoi mooy loolu. sa diggante ak Franc. waaw Franc moom mu ngi sama ramas moom amel na sama ramas. Franc nan la la amee ramas. Franc <laughs> Franc dañ ne moom mënoon si mboba di du loolu lañ te da nga yéenu Franc ba ci kaw. Franc dama ka bi ma koy yéenu dama ko bëriloo bu mu bàyyi ma soor ko yéenu yéenu ko ba teg ka fii comprendre nga kon moom mooy laaj revanche mais man maay toog rek di xaar du ma si laaj men mbër. mais soog fi mu Franc fi bu ñu la andiloon avance am dama ne la Franc bi ma koy daan damay jàng bëre bi may daan Franc joual damay jàng bëre ñu teg. booboo gën a diis booboo gën a ës. ñu gis ñu bëre soq dem ba mu tën. waaye déggoo li ma la combat bi amul sa danger fi mu àgg fekk sooxa moo moo juum rek te dañ ne ko juum daanu mooy loolu quoi mais dama ne la Franc revanche mu ñu tëddee dama ko bëreloo bu mu bàyyi ma yenu ko teg ka fii. mi ngi lay seetaan dama na laaj ka moom Franc yow laay laaj nan laa la daane loolu yaa koy tontu Franc nan laa daane Franc yow laay laaj coins waa Joal li may wax ñu ngi koy dégg dama lay laaj Franc yow na laa la daane nga décortiquer combat bi rapporté ko coins sa Franc ñu ngi bëre ñu ngi nga rapporté combat bi dama ko bëreloo bu bi ma koy yeenu mu ngi nelaw sama mbagg. bu la joxoon ko ma la du ma laaj. mais kii boo déggee ni mu waxee nii dafa bëgg a jëflanteeg Franc. dama ne ma ko laaj Franc laaju ma ko de. xam mais dama ne remanche mu ngi tëdd ba. da nga ko ameel kat. yow mos nga dégg Franc ma jaaxal waaw noonu la demee nag. mais nag Franc jam guddi yu ñu toll nii Modou Lo woon ci ginnaawam Papa Sow woon ci ginnaawam Pasta gépp ngi ci ginnaawam. dama ne la nit loo ko gunge gunge gunge gunge yi nga yem waa ji mooy bari rek mbëri xamante nañu de Franc am na fu ma jaarax moom de moom am na fu ma jaarax moom du ma yaatal si moom comprendre nga parce que ma yaatalee si moom sax dama koy may promotion non mais diñ ci yàgg parce que Franc dafay xeex te yow bi ngay bëreeg moom li simple nga doon bëreeg moom dama ne la Franc pour mu bëre foog mu bëre quatre combats soora am sama kese foog mu bëre quatre combats soora am sama kese yaakaaroo ci lamb waaye déggoo li ma la dama ne Franc buy bëre foog mu am quatre combats am kese bi may fayeeku man li may wax xam kon bu boo doon bëreeg moom mooy wàññi yokkal la. déggoo li ma la mooy lan. mooy wàññi yokkal la man maa yokk mais moom amul lu may wàññi. lu may wàññi kaseem yokkal la yow. dama ne moom amul lu muy wàññi ndax kaseem bu si wàññee yokkal ma day jeexal. am na lu ma la waxoon sama doom nday gars nañ bàyyi teggi bi comprendre nga ku ko jëlul bu ma la fa fekkee dama lay rey. mais diggante ma la ñuy wax. Franc tapet la bu ko jëlee ngeen doyal si lamb ji Franc man maay wax ak yow booy saajo tapet nga. boo jëlee Coense nga xam ne lépp dëgg la te Coense sax soxla wu ko nag na leer. waaw loolu jërë leer Coense soxla wu na leer. yaa ngi dégg lamb laa lay wax lamb ju neex la. waaw bu ñëwee dina doyal sëkk. kolifay Abou Ndiassé. kolifay kolifay Ada Fass. kolifay Ada Fass mais nice. kolifay essence maa lay siyaar Gilles maa lay bëggee lu bëri. comprendre kooku champion la woon Souleymane ñu ngi koy bëggee lu bëri. kolifay yeb nañ ko niñ ko war a yebee. te kilifa yi yebeewuñu ba dem stade di bëre loo xam ne du noonu kilifa yi dañu am si moom confiance bu doy yedduñu ko si dara mooy mu respecté adversaire bi jàpp ko daan ko ñibbi loolu la seexaa amuñu dara luñ koy wax fii ku fi ñëw da ngay gumbe kilifa yi moo fiy mbër muy man muy Siteu ñëpp ay fan sa lañ instant yi mais mais Ada booy bi ës na te de. dama ne la déggoo li ma laa de na pare si Ada Fass rek. Alga Boy Sadio ba ba pare nag Ada Fass nee na am na ñeneen ñu ma jëflanteel ku dul qualifié xoolu sax qualifié. waaye day déggoo li ma yow mbër yàgg na yow ma moteur lu ne wax na ma te bi mu duggee si giiw bi da woon arrière rek. non double moteur ak a Fass du benn. waaye déggoo li ma la waa double moteur ëpp Ada Fass kot dama na la mbër yàgg na tëkk mbër tey jën nee na dëkk mbër yomb na mais bëre moo ma jafe ñu koy nuyu Mike. waaye Ada Fass ne combat bi mooy nekk combat bi gën a yomb bi mu dalee bëre. la jàpp déggoo ma de mu ngi naan colis dafa am poids moom la concerné. le jour ji moom incha allahu rabi Coly li mu mobiliser nii dina ko indi stade incha allahu rabi noonu la demee. kon te ñu koy seede guy bu mu dul gaañu. waaw kontaan naa ci jaajëf jaajëf. baa ngi noonu ala yéen mooy yéen gaa ngi noonu. Galama Ndiouba rakki jeg jegin waaw